yaay complément donc je laaj ma jot na mu dugg ko dee grand te dugg na dugg na waaw macha allah ñu ngi koy gunge nag xam nga wan ko yoon bi comme ñun ñoo ko ci bu lëndëm moo la mën a wax kaay fooy toogee lu tax waale ba ñëpp yëg sa oto bu ndogalu yàlla la. ànd bu sincère la. mais wéy na la lu rëy waa Seck. barke alxuraani karim ñun topp ñu kenn ku dul yow yow lañ bëgg. <laughs> waxoon naa la ko fi mais sama safar gi. barke alxuraani karim su ma la tëkkaleeg nit. eh ñu duñ la tëkkaleeg nit yaay suñu papa ñun yow la ñuy tarbiyu kii sa doomu ndey la tey moo frère mais sopp barke alxuraani karim amal jàmmale papa. أما وأعطنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سبيل والحمد لله رب العالمين dee ngeen xaar de mbooloo bi nee am na lu ma waxoon ci wax ji

waaw ñu jëlal ñu jëlal ñu daan ko réewu Thiel Seck yëpp parce que nag loolu ñëpp ñu baax bokk nañu àndal man ko man ko cër bi nga xam ne jox nañ la ko loolu itam muy lu set yàqoon bu ñëpp a xam kon loolu daal ci gàttal loolu ñu ànd kër la mooy texte yi ndax ci base bi day yu bëri waxal nañ ko waa

tudd waaw

Vamos. bara maa reen bi sama doom jaay ji waaw loolu moo xam ne sax loolu moo xam ne félicitation jërëjëf

asalaamaaleykum man ngeen di jaare man ngeen di jaare siyaar naa la ñuy ñëw waaw siyaar naa la may sa rakk soxna tey bëgg waaw kontaan nañu c'est normal ah c'est normal waaw kon waaw muñ rek ah jigéen ñi moom faaw ñu leen di muñ waaw muñ rek sëy moom benn sëy sëy bu ne dina am ay dog-dog ah ak ay coono mais jigéen moom dañ koy yërëm dañ koy waddu dañ koy teral dañ koy muñal dañ koy sagal ah noonu la demee waaw bés bi ngeen bàyyi la ci waaw mais cër la rek moom ah dara ànd ak sama waajur te wax dëgg yàlla sama waajur dodo ba léegi euh, ñu ngi koy gis ni mu demati coon waaw la rek waaw kon Aliou dugg na ci cour des grands quoi na saako suuf bi xam nga saako suuf la moom dañ la koy yenn bu la gars yi yéene ba fay ñëpp dañuy arrière bàyyi mm. bi nga ngénte liñ ko dee xanaa lii la woon parce que maa ngi lay gis nga koy kaaj muy na ko booy takkal jabar ma. non non non c'est pas ça c'est pas ça dama ko def si yére bi ñaaw na. <laughs> may la ñu may la ñu waaw. may la ni Thiel. am am. Thiel